sentiment bi mbégte la mbégte la parce que ben combat boy mëne bi nga nekkee xalé ba mag fekk fi combat bi loolu la ko ñëmé wax parce que première fois bi may assister ci réunion bu melni tambalé de pollution bi wala xex ci li yakh bi de an ça remonte à 25 euh, ans ou même plus jamono joju nem si yàlla si Mamadou Diop mo fi nekkoon maire de Dakar ak sunu grand Max Diop mo fi nekkoon mo fi ne euh, invité ñu si ñu ñëwone di ci débattre donc lolu man presque tout temps que la woon ba tey ma am machallah allah at am gis tay mu réalisé wu. gouvernement Sénégal dugal ci loxom ce qui est important parce que euh, luñ la mënti financer lu mu bari bari il faut moom ben apport bu ndaw bo xamné au moins euh, président bee indi Sénégal moo koy indi et le président il l'a mis sur la table fekk ci milliards yi nga xamné dañ koy def pour dépolluer baie bi nga xamné qui était la plus belle baie ou qui faisait partie des plus belles baies du monde ñun on a vécu la beauté de la baie bi ñu nekkee xale sangu nañ fi ut nañ fi football nañ fi wut nañ fi jën di ko lu nekk nañ ko fi donc tey kenn ñemetul ñëw ànd sa njaboot laal géej parce que tout simplement dafa Ya yàqute boobu nag loo gis defar buñ ci waxtaan ak population bi ce qui est important nga boole leen ci combat bi waxtaan ak population bi xamal li ñuy defar sen intérêt tey ñu xamal leen aussi population bi liñ ci liñ ci euh, polluer lu ndaw la par rapport ak déchets industriels bi donc industriel yi loolu je pense que gouvernement bi mën nañ leen maîtriser ba nga xam ne kenn dootul polluer kenn dootul tour loo xam ne war ko créer dañuy structure yoo xam ne dañuy euh, drainer ndox bu salté bi yëpp pré-traité ko soog ko sànni si géej nga xam ne dootul nekk salté donc loolu yëpp ay combat la yoo xam ne ñu ngi koy mënee ñun liñ ci mën a def nag mooy sensibiliser Fred Gessé a ben un festival plateforme de sensibilisation de plaidoyer Il a fait daf def tous les ans si géej tambalé, la centre culturel français am na biir finalement il am biir Parc Hann nous nous ñuy continuer comme alibi on appelle le public à venir écouter de la bonne musique mais en profiter sensibiliser leen xamal leen ni euh, baie de Hann nous ñu régler problème mu baie de presque plus de 50% de euh, pollution au Sénégal parce que ni mu yaatoo ak ni mu taaroo boo ko continuer nak sensibiliser nit ñi ci taral Sénégal continuer sensibiliser nit ñi ci taral yaraax ëlëk ñom résultat bu baax. xam nga que gis waxtaan la xex nañu ba am combat bi mu mais dafa pour le moment ci traité déchets liquides maintenant il faut trouver une autre solution pour les déchets solides lo xamné nettoyer d'abord jël li nga xam ne c'est récupérable dans tous les pays du monde il y a des systèmes de récupération de transformation des déchets solides utiliser ko def ko leneen mën nañ ci xalaat mën na générer ay travaux mën na générer ay emplois jël ay nit ne leen bu ngeen dajalee lii ak lii def ko nii ak nii mën na doon ay briques gisoon naa ñu ko doon jël di ko def ay pavé am na ñu koy jël di ko defaat ay pam panne yoo xam ne dañ koy utiliser ci biir kër yi yooyu yëpp mën na générer ay euh, emplois waxtaan ci loolu mu nekk prochaine étape bi mais xam nga loo gis benn par benn la démarré nañ ci bi wóor na ma ne ci boobu la ñuy topp gars yi xam ne ëllëg dinañ am Sénégal bu taaru dinañ am Sénégal boo xam ne tourisme bi dinañ fi sawar parce que tout simplement destination nouvelle lay doon bu extraordinaire. Cette organisation que je vois me donne envie de proposer à l'équipe, notre ami Matar Ndiaye, euh, le président du, Festival, mes frères Djibi et Omar, de revenir un peu sur les pas de la mer pour organiser la prochaine édition, un concert au moins au bord de la mer pour communier entre la musique, le public et la mer.